nga xam nga ñun boo xoolee suñu ko xeex ba à la dernière minute et au sax moom il était resté seul que dafa am ñu dem ci ci élection yi ci nekk ci candidat ci candidature yi ba seen parrainage jàlle dañoo bàyyi xeex boobu dem nekk ci leneen donc ñun suñu principe yooyu dañ ci taxaw ba tey parrainage bii niñ koy defee au Sénégal baaxul waaye ay charte fi nekk conseil constitutionnel mooy mooy bu bu parrainage ñëwee ñoo ñoo def seen filtre ba teg affiché liste candidat yi wala ne boo bëggee participer tey ci élection présidentielle yi wala si élection législative comme yi amoon tu es tenu de te conformer à cette loi même si elle n'est pas bonne tu es tenu de te conformer tey boo nekk citoyen boo nekk kii amuloo beneen mbir moo mën a def mën nga ko xeex bu ñëpp tënku woon nag ne dañuy xeex parrainage du fi am ñëpp jàppandoo ne bu ñu amul bu parrainage amul élection du am xëy na ñëpp jàppandoo ko ñu mën a wax mais tey force est de constater que tey la loi elle est là les règlements sont boo utiwul parrainage doo bokk élection et boo bokkul bu ñu la falul doo mën a ñëw soppi lu fi nekk parce que lii aussi il faut que loolu lay nekk ñun en tout cas la république de valeurs bis bu ñu eggee ci nguur gi yii nii dafay bokk ci lu njëkk ci li ñuy lijjanti parce que lii dafay sooxal démocratie du ñu accepté ti un président de la république avec son parti lépp tënk ñëpp. ne moom mooy ut ay mbër yi muy bëreel donc loolu dañ koy dindi may ñëpp tolloo bàyyi institution yi nag ñu doxal lu yoon. mais mm. à l'état actuel on dirait que presque amul lu ñu choix. il faut que nit ñi uti parrainage. il faut que nit ñi dem déposer. Mm-hmm. et après conseil constitutionnel déposer et conseil constitutionnel décider et vraiment cette fois-ci. et vraiment encore cette fois-ci. Mm. on espère que ça se fera dans les règles de D'accord. Fait Georges la théâtralisation qui entoure. Euh, l'avant-élection la période préélectorale tey jii est-ce que loolu dessiné wul déjà élection yi ñu nar a am ren ci présidentielle mu nar a doon une première ici au Sénégal. <laughs> bon écoutez c'est-à-dire que parrainage bi daal en tout cas dina régler une bonne partie du problème bon aw mu ngi wax léegi les doutes et les craintes qu'il a par rapport au parrainage mais le parrainage n'a pas commencé en en deux mille dix-neuf. le parrainage était là dans les années 60 mais il était imposé ak ñoo xam ne amuñu benn parti politique. candidat indépendant un candidat indépendant. par exemple du ñu wax ne Thierno Alassane Sall mi nga xam ne am na déjà son parti bu bëggoon bokk si élection duñ ko wax ne non demal wuti parnage parce que xamoon nañ ko déjà. mais koo xam ne un Georges boo xam ne day dafa yeewu rek ne dama bëgg a nekk candidat nekk ban parti boobu ne aw parti dañ leen yow demal nga dugg biir Sénégal ba gars yi xam la nga wutal ñu ay signature à l'époque, quand même, c'était quelque chose comme 11 000 signatures. 10 000, signatures. 10 000 11 000 La, personne du candidat boo xam ne du ñëw du ñu yàqal ay bulletins du yàqal xaalis mm. boo gisee par exemple euh, la la présidentielle de 1988 il y avait quatre candidats mm -hmm. Abdou Diouf Ablaye Wade Landing Savané Babacar euh, comment il s'appelle euh, waaw Babacar Niang. Babacar Niang du PLP. ñoom rek ñoo fa nekkoon candidat en 88 ñu dem 93 bon c' était à peu près 7 8 candidats ñu dem 93 2000 si la affaire yi xaw a yéeg 2000 la candidat yi commencé yéeg yaa ngi dégg te desi 2000 boobu ñu dem ci 2007 voilà foofu la mbir mi détraqué nag bu dekkoon compteur bi ne la c' est à partir de 2007 que le compteur bi détraqué dem ba 14 candidats. 2007 boobu ñëw encore ba 2012 ñu on reste avec le même score. Mm. avec le même nombre 14 candidats. ba si tu te rappelles les gens ont essayé même à partir de 2007 d'arrêter le le le truc euh, euh, la la pléthore en instaurant. yokk caution bi. Mm-hmm. ba gars yi ne non ça devient une démocratie censitaire. te démocratie dafa war a nekk loo xam ne képp koo xam ne da nga yaakaar ne tu as les les moyens tu as le si war a dem. Mm-hmm. Hmm. gars yi teg bi à vingt cinq millions ñu nekk non ça c'est vraiment trop censitaire nangam nangam mais ils ont essayé avec le filtre ce filtre là malgré tout n'a pas passé ñëw deux mille dix neuf nekk nañ ko denk mat trente millions <laughs> malgré tout tu as millions il y avait il y avait pas autant de candidats à la candidature. Mm. cette année on maintient ça avec un système de parrainage. mais rien du tout on est encore à deux cent et quelques donc ça veut dire quoi la solution faut la chercher ailleurs. faut la chercher ailleurs faudrait quand même que euh, man dama ne toute façon je l'ai dit ce matin à l'émission PDG mu nekk léegi bu ñu ne ne woon par exemple balaa ngay retirer fiche parrainage yooyu bu fekkee ne woolu nga sa bopp nga déposer une moitié de la caution par exemple 15 yi nga déposer ko. au parrainage au parrainage nga retirer sa fiche boo demee tu n'as pas un certain pourcentage de parrain. xaalis bi nga déposé noonu ñu moo nekk loo xam ne moo war a rembourser l'argent qu'on a pour toi pour nga am sa fiche. Mhm. parce que ça s'applique à, à l'élection présidentielle ce caution boo amee zéro virgule zéro pour cent boo amulee cinq pour de façon tu perds ton argent parce que quand on a mis des milliards sur toi tu auras au moins cinq minutes à la télévision nationale chaque jour pendant pendant pendant trois semaines ñu tegal ay journalistes ñu lay topp booy fecc sax ñu lay filmer booy woy ñu lay filmer booy wax booy wax du non sens ñu lay filmer mm-hmm. <laughs> mais tout ça sur le dos du portable ngay dem on fabriquera pour toi le même nom de d'inscrits c'est-à-dire six millions de bulletins mm. à ton effigie jox la euh, imprimer six millions d'enveloppes jox la sans compter maintenant les prospectus yi nga xam ne c'est l'état c'est l'état qui le supporte donc même ces 30 millions mais les gros calibres également qui doivent euh, arrêter également le marchandage euh, Georges non mais les, les gros calibres ne peuvent pas l'arrêter parce que en fait c'est-à-dire les bu fekkee ne dañuy également c'est-à-dire les faire la politique autrement les, aussi les, yi ngay wax noonu ñooy dem vers les les gros calibres parfois pour marchander avec eux c'est pas parfois les gros calibres qui viennent aujourd'hui par exemple. Euh, mais qu'importe vice versa bu ci mënti am. également les gros e-, e-, également les receveurs nañu bañ. mais bien sûr mais mënuñ ko bañ parce que il y va de leur intérêt c'est-à-dire pour ñoom dañuy toll foo xam ne gisatuñu euh, l'aspect négatif de de cette affaire la ñoom nañu jàll. c'est-à-dire nañu gagné tout est tous les moyens sont bons pour mën a remporter une victoire loolu le problème bi maintenant euh, aw mu ngi soulever un débat assez intéressant c'est-à-dire. tous ces candidats-là, aucun d'entre eux ne maîtrise le système du parrainage. maanaam comment est-ce qu'on arrive à franchir le cap. Mm-hmm. léegi euh, xam nga le premier à déposer il est, il a beaucoup plus de chance à franchir le cap du parrainage pour deux raisons c'est que il a peu de et, et, bon je, je peu de chance d'avoir des doublons. parce que bu déposer rek xam ne ñu ko signer yëpp. Mm-hmm. dañ mën valider. Mm-hmm. mais si Ao qui vient en cinquième position il n'est pas sûr de ne pas retrouver des gens yoo xam ne signalé nañ ko signalé nañ par exemple man mi nekkoon le premier te moom xamu si dara. mais Ao mi ngi également le mode de contrôle. oui mais le mais ce mode de contrôle là effectivement c'est là c'est là où se trouve le problème ça a toujours été d'ailleurs décrié par le, la classe politique surtout de l'opposition ñoo leen wax ni ñii. on est d'accord pour le parrainage maanaam parrainage bi ça aide à filtrer un peu le cette ruée vers la la la la, Mhm. mais encore que ça soit un filtre boo xam ne les gens ils comprennent quelque chose. d'accord ñu bëri ñu bëri parmi les candidats la Euh... je même pas des candidats lilliputiens mais les plus sérieux en tout cas ce qu'on peut nommer de sérieux. Mm. mais boo demee ils n'y comprennent rien donc l'autre nouveauté cette année encore qui attire mieux. Mm. c'est que Macky nga xam ne mooy le président sortant bokkul. l'opposant principal nee nañu du bokk. Mm. alors. même les mbër yu yaaw jaar sax dañoo dañoo am eh, eh, eh, tey ah ah. sànq sànq benn anecdote démb xam nga comme on le terrain outil parrainage ak yooyu ma doon deseeg benn une jeune fille ah ba daf ma jàpp ba tey ci li wax ni la sama xel ñëw elle a juste après vingt ans bu ñuy waxtaan ma koy expliquer bi nu muy demee ñi ñi déposé gum doom démb on était mu ne ma mais nga yaakaar ne xale la de moo tax ma jàpp affaire bi mu ne ma nga yaakaar ne buñ newoon kuy retirer fiche di nga fi bàyyi 15 nga tey ne 200 dinañ egg nombre bi. ma pourtant wax nga dëgg de. man sax j'ai j'ai pas pensé ma effectivement si on avait demandé une caution ngay wàcc ngay teg balaa ngay retirer ah, fiche on n'aurait pas ce nombre là. est-ce que dinañ sax 20 candidats. donc pour te dire aussi. et loolu pourtant je me dis tey un régime sérieux et je suppose que le régime il est sérieux waroon nañu mën a anticiper nga ne ku mu neex mën na bokk tegaloo benn filtre tegaloo benn kii. mais bon mais, est-ce que est-ce que je je ne te coupe pas est xam nga yaakaar naa ni sax. Mhm. bu fekkoon ne rek caution bi am na avance. Mhm. ñu ne balaa ngay kii rek. nga balaa nga nga avance. mais 30 millions da nga koy xaaj fii ngay joxe 15 ñi ñi wóor na ma ne wóor na ma ne boo ko waxoon tey doo am 100 candidats. non du mat am na ñoo xam ne ñu bëri am na ñoo xam ne ñu bëri tey ñu les 206 la boo doon boo leen doon woo kenn. par kenn mais est-ce que cette situation là arrange arrange l'État vous deux pour bu bàyyee dara rek arrangé na ah gis nga cette dispersion de de de de bon, mooy doon bénéfice am ci euh, cette situation. am tey am na kenn ku nekk ci benn kandi benn parti génn na créé na beneen kii yom dem na uti donc na kooku aussi il de monnayer ses ses. il va essayer qui sait peut-être que ñooñu aussi gars yi ñoo jox ne dem leen ngeen uti ki ngeen bokkal. partie mu nekk seen candidat rocceeku leen ngeen génn boo leen rocceeku ngeen génn di ngeen yóbbu yeneen peut-être après ngeen dem monnaie ak keneen donc ça peut faire le jeu de l'État et bi ñu yor nii régime bi ñu yor nii mhm. bu fekkoon ne def nañ lu ko arrangé wul na ko d'accord Georges par rapport à cette oui, question bon, c'est-à-dire euh, ça peut donner l'impression de d'être une vitalité démocratique mais non non non ça je crois que je le dis encore trop de démocratie la démocratie gis nga la facilité li may njëkk a mooy la facilité avec laquelle on crée des partis politiques au demee ba am 339 partis politiques tey au Sénégal c'est parce que pour nga créer parti politique jafewul lu si gën a cher mooy timbre bi nga xam ne ça coûte à peu près 2000 francs à l'époque je crois que c'était ça mm. nga former indiquer ton siège ànd ak son ton petit comité léegi nga xaar ministère de l'intérieur délivré la léegi parmi les 339 euh, partis politiques là mm. am na tour yoo xam ne yow yow mii nga xam ne bi nga juróo ba léegi bu ñu la ko waxee da nga ne boobu ban parti la kan mooy chef de parti bi mais boo xam ne quand même mm. boo ne euh, République des valeurs ne Thierno Alassane Sall boo Sonko boo nee APR ne Macky Sall mais ay da ngay dégg ay doomu réew mi ay xawma lan <laughs> vraiment des appellations yoo xam ne man mi man mi pendant vingt ans dans la presse parfois damay toog di gis la liste des parti politiques au Sénégal am yoo xam ne mosuma leen suma leen gis fenn suma leen dégg mosuma jot seen pandant vingt ans de carrière mosuma gis seen simple communiqué communiqué mm. bureau politique. mosul mm. am dara xew si réew mi ñu yónnee ko dans la presse. mosul mm. am seen congrès mosul am. Mm-hmm. donc de partis comme ça le ministre de l'intérieur daf leen war a daf leen war a dissoudre. Mm-hmm. malheureusement mais moi je pense que lii yëpp euh, c'est euh, du cinéma on attend divertissement la. point final bi moo di conseil constitutionnel tey jii c'est ce qui importe tey jii euh, aw. le 11 la ñu wax 11 décembre la ñuy euh, tàmbale woon nit ñi pour ñu ñëw dëpp donc je pense que les choses sérieuses vont démarrer à partir de ça et je pense que même <laughs> du 206 yi ñoo ñëw présenté wu devant le conseil constitutionnel parce que aussi boo demee outil parrainage waroon am 44 300 ci tu te retrouves avec xam naa yeboo Sénégalais ne da ngay dem conseil constitutionnel pour déposer. d'accord xëy na là tu vas monnayer ton truc en tout cas xool leneen loo def avant nga egg foofu. d'accord ñu ñëw ci deuxième thème bi mooy euh, radiation de Ousmane Sonko des listes. Mhm. Euh, on a vu le ministre euh, de la justice. ça fait un bon bout de temps après Jeune Afrique et tout mi ngi dem di lewal li nga xamante ne jëfee nañ ko ba pare démb sa dernière sortie également il s'est emmêlé les pinceaux xamatul fan